bu war a tàmbali tey ñu ànd kook service d'hygiène ànd ak euh, mboolem Touba ca kanam yëpp yëpp yëpp ci kanamu président Touba ca kanam Serigne Abdou Fatah Gueye di wax ne fës nañu ko tàmbali tey jii tàmbalee ko ci intérieur corniche bi njëkk bi nga xam li nekk ci biir corniche bi lépp lañ koy poudre waaye duñ ca yem buñ paree dañuy jéggi corniche bi topp ko ci ñeenti xibla yi fii ba nit yi dañ fay jaar jaar côté Umul Xura jëm Saam.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 ngir lépp ñu ànd mën a xeex li nga xam ne mooy jàngoro yu sibiru ak yeneen xeetu jàngoro yi ngir nit ñi aussi mën a am benn soulagement ndax yooyu bëri na waaw su ko defee loolu dana nekk loo xam ne aussi dana tax nit ñi mën a féex tuuti mën a génn ci biti mën a noppalu kon loolu lu am solo la vraiment ñu ngi leen ciy gërëm bu baax di leen ci remercier wasallian alaya bana salat waali wa sahbi sawi silat wa kullu man qaddamani aw sara ونجني واخفض له أوسارا وكل من عابني أو مالا إلا يفعل سخودا أو مالا